alquran yi fi jang xasaay yi fi jang ci limu ñu yalla yàlla na ko yàlla nangu te jotal leen yomb ñu daaneel suñu kàddu rek ci ginaaw bu ñu fàttalikoo sëñ si di muxtar ñaanal ko suñu borom dolli ko ay leer suñu mbokk yi nga xamne tam dañ fa joge bu yagul te ci ko mujju di sëriñ baara silla doonoon kenn ci mbolo mi amon pestef lol ci liggéey bi dan taxaw itam taxaway am solo ci bis bi moom itam ñu koy fatali ko ci bis bi ñaan suñu borom mu dajee ak ngërëmam waaye ca la ko jiitu itam soxna baali ak ña daw ci ñëpp rek ñu leen di fàttali ko ci bis bi di ñaan sama borom mu jéggal leen te yërëm leen ma daal ñu ngi dalal ñëpp di leen ñaanal jàmm di tënk foofu kàddu yi lu ci des sëriñ Bachir bu ñëwee dina ko mottali wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu kilifa yi fi teew di jiital ci suñu nuyo serigne muhammadul muntaha mi fi nekkal khadim rasul di ci teg sëriñ ahmadul muxtaar mi nga xamne moy kilifa barab bi di ñaan suñu borom mu may leen gudd fan motax ñu jukki ci suñu biir ab lim rek ngir ñu ñew and kon yalla nañ ko yag and yag ñaanal ñi fi bayiko te ñu suñu borom bayyi ñu yag liggéeyal Serigne Touba yàgg am ngërëmam kàddu yi muy gudd muy gàtt kàddu yi seede la ak cant ak ñaan yàlla yàlla defal dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu